ma sama bopp de waaye téye naa sama làmmiñ yow yaa ne ma kii xare fagul di waaw Fall Diagne Fall Fall bàyyi yaa laa fi boy dafa jafe de. boy taa am nga xaalis de. waa gis nga may def eh, boy. taa yi de bii laa laal gaañ. waaw. naka na. waaye naaj kay. mais boy bii xanaa bii war naa yegg ay sept millions huit millions de ah. non bii nii ay neuf millions yooyu ay taa taa yi gaañ café gi nga for gaañ ba nga ma cee jox de. yow koy ñaanal la xéwal am. bu ko ah, defee bu may def maa bëggoon noppalee ko gaañ ci mbuute yi quoi gaañ wut oto. non oto bi moom su may dem fi laa koy bàyyi. loolu moom xam li moo tax nga def ma nag quoi mais booy mais booy mais booy temps soxla woon naa la quoi ba jàmm la mais booy temps am na xale boo xam ne temps boobu ci koñ bi nekk ah. mais booy xale boo xamante ni maaleykum salaam ah ci loo nekk soxna si naka waat naka jàmm ji maanaam jàmm baax a baax booy moytul sa bopp parce que feebar dafa bëri ci dëkk bi booy tam boo moytul nag su leen lay wàllu feebar nag doo xam nooy def wax naa la ko nag ma teewuma sama bopp de waaye tee naa sama lami yow yaa na ma kii xare fagul di ku la wax loolu yow eh kii mën naa sose sosu man kii damaa gis na wala jongul waaw yow booy bi saytaana la de. non du question pour saytaana kii li mu wax nii nii am na loo xam ne maa yow ñoo ko seet. ah booy man man moom loolu. moom mais secret bi la moo ko génnee ci mbedd mi. non soskat la. la mooy soskat la bu fekkee nit ku mën a sos. non saa yow yow ndekete jaam nga quoi sa waay. saa yu bëre jaam nga quoi. saa yu man ndekete man li ma gaañoo ak yëpp yëpp gaañ gaañ ndekete da ngay génn ci mbedd mi gaañ di ma weer quoi. yaa weer sa boobu de. saa xoolal wuy ma xoolal saa wuy ma wuy ma wuy ma ji day jeex de. waaw ah? waaw jeex na jeex na. Ah? na te. ñu boo jànguwul tamit yaa ko jënd yaa njëkk a weer sa bopp man ma toll nii yow